aus billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin bokki réew mi man imaam alhaji ibrahima bi tey maa ngi leen di nuyu di wax ne audio boobu ñuy dégg muy information buy joxe ne weer wi dafa feeñ am nañu ko gis fii mbi tay mbiteen abdu loolu wérut man Imambe, imam bi lol di ci tele ci ci whatsapp bi la ko degge ak wel telephone yu may laaj ndax lolou amna wala hamut dekk bi dal man may imam bi degguma kenn ko wax ni na fi gis na fi wer wi kon lolou lay xamal rew mi ñun de gisun wer wi assalamu alaykum warahmatullahi A'udzu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin bokki rewmi man Imam alhaji ibrahim bi tay mang len di nuyu di wax ne audio bobu ñuy dégg muy information buy joxe ne wer wi dafa feñ am ñu ko gis fi tay abdu lolu man imam bi loolu di ci télé ci ci whatsapp bi la ko déggee ak ay weer yu may laaj ndax loolu amna wala xamut dekk bi dal man may imam bi dégguma kenn ko wax ne dégg na fi gis na fi weer wi kon loolu laay xamal réew mi ñun de gisuñu weer wi asalaamaaleykum wa rahmatullah aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin réew mi man imaam alhaji ibrahima bi tey maa ngi leen di nuyu di wax ne audio boobu ñuy dégg muy information buy joxe ne weer wi dafa feeñ am nañu ko gis fii mbi tay mbiteen abdu loolu wérut man de maay imam bi loolu di ci télé ci ci whatsapp bi laa déggee ak ay weer téléphone yu may laaj ndax loolu am na wala xamut dëkk bii daal man maay imam bi dégguma kenn ko wax ni dégg na fi gis na fi weer wi kon loolu laay xamal réew mi ñun de gisuñu weer wi asalaamaaleykum wa rahmatullah aasbillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alamin bokki réew mi man imaam alhaji ibrahima bi tey maa ngi leen di nuyu di wax ne audio boobu ñuy dégg muy information buy joxe ne weer wi dafa feeñ am nañu ko gis fii mbi tay mbiteen abdu loolu wérut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 man imam alhaj ibrahim bi tay mang len di nuyu di wax ne audio bobu ñuy dégg muy information buy joxe ne wer wi dafa feñ am ñu ko gis fi mbi tay mbiteen abdu lolu wérut man damay imam bi loolu di ci tel ci ci whatsapp bi la ko déggee ak ay weer yu may laaj ndax loolu amna wala xamut dekk bi dal man may imam bi dégguma kenn ko wax ne dégg na fi gis na fi weer wi kon loolu laay xamal réew mi ñun de gisuñu weer wi asalaamaaleykum wa rahmatullah aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin bokki réew mi man imaam alhaji ibrahima bi tey maa ngi leen di nuyu di wax ne audio boobu ñuy dégg muy information buy joxe ne weer wi dafa feeñ am nañu ko gis fii mbi tay mbiteen abdu loolu wérut man de maay imam bi loolu di ci télé ci ci whatsapp déggee ak ay wel téléphone yu may laaj ndax loolu am na walla xamut dëkk bii daal man maay imam bi dégguma kenn ko wax ne dégg na fi gis na fi weer wi kon loolu laay xamal réew mi ñun de gisuñ weer wi asalaamaaleykum wa rahmatulah.